Sildo de amor. jógee ci déclaration Tchad gis nañu fofu aussi politiciens yu bari ñëw fa indi sen soutien ñomit à travers Kilifeu mais politiciens yi fa gis aussi c'est de l'opposition gis nañu fa ku melni Barthélémy Diaz maire u euh, Sacré-Cœur Mermoz muy euh, une personne de principe une personne qu'on respecte toujours par rapport à ses engagements moi je le dis devant tous les écrans c'est quelqu'un que je respecte ndaxte dama gis ni que ba mu tambalé wax bobu batay lamu wax rek fofu lay dellu soit ambition bu mom ak conviction muy deug même si ma beaucoup ak mon position mais c'est quelqu'un que je respecte yoon la mu il aussi indi soutien gis nañ fa ku mel Babacar Diop gis nañ aussi ku mel leader leaderu Pastef du Ousmane Sonko mais lu jaaxal ni nii tey soo ce soutien da nga fekk mouvement muy mouvement Y'en a marre yow nga yor sa parti politique muy Il am nga droit se sa soutien quel point de presse mais waroo woon ay cadeau. mais Ousmane Sonko a fait de graves révélations en accusant le procureur Bassirou Gueye nañu déglu Ousmane Sonko corruption mais dem l'article article 159 code pénal pour corruption il faut un agent public dañ pour qu'en échange mu def wala mu agent public après ils mettent leur leur leur de X excuse-moi du terme comme dit Barthélémy c'est du foutage de gueule tu prends tu mets X mais quand que nous corrompre dans cette affaire là parce qu'il faut coûte que coûte fabriquer des preuves pour que nous dem une prédication mais ñooñu ay borom kër lañu dañoo yor doom yor jabar yor ay ay activité yow nga leen tëj gënoo leen Macky Sall leen tëj gënu leen te tey su jugee palais dina dem toog ak njabootam et on nous dit laissez passer balaa may dee ñu ne Sénégal réewu jàmm réewu jàmm day fekk tous les acteurs dox jàmm te yow mi ñu jox nguur pour nga améliorer le sort des Sénégalais nga bañ ko utiliser pour di dal ci kaw nit ñi ma daaneel nag ci wax ni nous serons à aux côtés de Yanamar dafa am combat yoo xam ne bu jotee bu ñu nangu fi yi waaye c'est politique c'est pas man bi ma ci tollee ñi ñëw duñu politicien mais suñu taxawloon heure bi du ma toog fii di wax dafa am fu mbir di toll man je ne suis pas là en tant que politique je suis là parce que mes frères kilifa musma woowee Sonko ñancoo la may je suis là parce que dañoo jël

D'ailleurs, Sonko va aller en prison, il va pourrir en prison. ne ko yor naa certificat médical bi kilifa ne ko ñun ñep yor nañu certificat médical mu ne ko boobu baaxul mu ne ko boobu nekk ci PV gendarmerie nga ne boobu baaxul yow am nga benen. mu ne ko de toute façon il faut aller en prison kilifa ne ko bu yóbboo ngeen préparer ñu ay cellule ndax ñoo koy ci prison ba. ci ko xamni mi miinante wuñu woon. parce que li ngeen bëgg a def du dëgg jaay doole la lii kilifa dafa jóg jóge foofu ñëw sama kër ñu toog waxtaan ci waaye li gën a yéeme sëñ Bassirou Gueye daf ko ne dañu toog rek sama soxna andi reer bi ñu teg commencé reer moo présenté ko soxna si yooyu mu yëngal boobu ma ne ko lu xew mu ne ma sëñ Bassirou Gueye ngeen jéggal ma ci kàddu gi sëñ Bassirou Gueye moo mën a seen dëgg dëgg dëgg dëgg ma ne ko ah daf ma ne Sonko sax d'ailleurs këram tas na jabar ji jël na bagage am ñibbi na loolu ban rapport la am ak travail procureur ba di toppatoo kër jàmbur ndax tas na wala tasul c'est de la méchanceté gratuite et bête ça n'a rien à voir avec la justice te loolu mooy justice Sénégal yàgg naa wax ni problème Sénégal la koy tas dina jóge ci justice te ñeent ci biir justice bi ab procureur la waaw ginnaaw bi yaa euh, Naamar defee soutien à l'endroit de Kilifeu ak Simon gis nañu kii di euh, Ousmane Sonko jiite Pastef ñëw na fa moom def déclaration mais lan moo bett nit Ousmane Sonko nous na ñëw def soutien mais amul déclaration bu mu fay indi parce que mouvement Y'en a marre moo parti politique yow parti politique nga parce que aussi il faut qu'on arrête de duper les Sénégalais Macky Sall ñi mu tëj dañu am ndey am bàyyi est-ce que Macky Sall moo leen tëj est-ce que Macky Sall il faut qu'on arrête de prendre tout pour la mettre sur le dos de Macky Sall nous sommes des Sénégalais on respecte tout le monde tay ni Pape Alé amé khalatam du di di défendre Nous non, la ñu Khalat suñu de défendre Ousmane Sonko tu aspires à être le président du Sénégal Taï discours bi ngay jox nit Sénégalais yi bëgguñu ko Qui dirige Sénégal D'abord war un homme d'État D'abord un diplomate tay dafa war a am ay kàddu yoom da ko war a génnee parce que tay sa parole amu fi woon wàll ñëwal j'apporte mon soutien à Kilifeu c'est pas Macky Sall qui les a emprisonné tey Ousmane Sonko nga ne da nga bëgg a nekk président Sénégal da nga bëgg a changer système nga jàkkaarloog ñaari vidéo ñaari membre Y'en a marre di ci def faux faux lañ ci def maanaam jox la xaalis jox la passeport pour nga wutal ma kële jël passeport am jox ko nit pour mu tukki ci nga bëgg a cautionner loolu am nga droit soutenir leen am nga droit ànd ak ñoom ndaxte bañ la jàppee da ngeen nekk dañu nekkoon sa ginnaaw bañ la jàppee tamit problème personnel lañu la jàppee woon ndaxte état porté wu la plainte xale bu jigéen muy sénégalais comme yi sénégalaise di aji Sarr comme yow ngay sénégalais ngeen bokk même droit même titre ci Sénégal moom nga séqal ba ngay dem ca salon de massage ba Macky Sall yëgul man yëguma keneen yëguma def nga am defuma du ko euh, confirmer parce que sama yoon nekuti. ci ñoom ñoo jël expose ko sur le plan euh, sur la place publique comme ni ñuy problème wu Tay tey ñi ngay wax ni tay dañu am nday am baay ñaata nit ñoo nekk ci kaso bi am nday am te innocent lañu longue détention yi ñuy wax ni nit ñoo fa toog tay jii ba tey jii kenn jugé wu leen lu tax wax ci loolu tey nga ñëw bëgg a ba nga le procureur Bassirou Gueye mo wax kilifa Lutak procureur ba waxé lolou depuis mois de février ba tay ji chaque jour nga def point de presse muso taxaw wax ko est-ce que procureur tay ak fimu nek ak limu xam dina jog di wax kilifa benn ak kilifa bu mu wax lako chaque jour nga def point de presse nga jël ay accusation tek ko ci pro ci euh, di Bassirou gay tay nak ken bëggul woon dugg ci sa vie privée ñëw soutenir kilifa lan moo ci indi sama soxna ñëw teg bi lan moo ci indi procureur nee na këram tas na jabaram dem na yaa indi sa problème nag sur le euh, sa problème privé la yow ak sa jabar c'est privé yaa ko indi place publique tey nag journal People mooy leeral lu tax mu indi ko parce que sa soxna sii di Anna Diamanka dem na yoonam nekkul sa kër sa aawa nga nekkal aawa keroog ba Adji Sarr génnee def sorti am révélation bu mu def jour bi ñëw di ko gis nga ne ko maak sama ñaareel bi dañoo xuloo woon mu bëgg a jubóog man sol robe bu rouge aana bi mu dégloo loolu dafa confirmer loolu mu xam ne dëgg la mu dem yoonam aana nekkul sa kër jamono ji tuddee aana mi ngi si sa kër tey Ousmane Sonko man maa lay ñaan ci journal People yaa ngi may déglu wala waa Pastef ñu ngi may seetaan defal ma benn vidéo léegi nga posté ko parce que réseaux sociaux yi yéen ko moom Ousmane Sonko nag nous te respectons on respecte la personne de Sonko mais on veut aussi quelqu'un qui respecte les Sénégalais parce qu'on fait partie des Sénégalais su ñuy déglu tamit bëgg nañu déglu loo xamante ni moom muy dëgg Anna Diamanka newul sa kër waaw parce que information bi ma lay jox nee na bés bu dellu sool sa buntu kër su dooleel gi ngay njëkk a pour photo pour won ko aduna bi yëpp ana newul sa kër tas ngeen nga problème aji Adji Sarr moo tax ngeen tas def nga nak deful sama yoon newu ci justice mokoy koy ya yaa indi sa problème mu kër tey ci télé bi motax ñu leeral askan bi ana Diamanka jour ba mu ñëkke genn sa kër lañu ñu xam ne ni génn na sa kër si di bind ko ngeen commencé ay leen mais l'avenir nous a jugé ana Diamanka on le connaît très bien niñ la xamé ba étudiante ba bala ngay jógee ci sa premier jabar et tout ça on le connaît nous te respectons beaucoup donc il faut respecter les Sénégalais tay tu te comportes comme un président Ousmane Sonko Ousmane Sonko son nee tey corruption Ousmane Sonko nous avons ñu remarqué lu bare da nga toog fii keroog biñ la bàyyee nga def sa point de presse nga ne reconnaître la légitimité Macky Sall moo tax tu jamais appelé président. Nous avons ni que bi Covid bi amee ba nga taxawee palais yow taxaw monsieur le président muy ñaari wax yu méngoowul Ousmane Sonko yaa fi taxaw ci vidéo nga ne do ànd ak Karim te reconnaître loolu légitimité ba ngeen di def coalition yéen a ngi ko doon Il y' a beaucoup de choses ba ci gendarme bi grenade bi kon loxom ba nga taxawee wax ni loxom laké gendarme bu mu génne dafa mengo donc nous sommes des Sénégalais tu es libre de le président de PASTEF tu es libre choisir sa camp ay nit aussi libre nañu ànd ak yow gëm la mais ku gëmul ci àndul ak yow na ngeen ko bàyyi ci ndax te tay tey képp ku gëmul Ousmane Sonko les leaders de Pastef ñu ngi ci réseaux sociaux partout à travers le monde yor ay kàddu yu ñaaw yor ay si vous aspirez à être dans un pays démocratique il faut d'abord nous montrer la démocratie depuis lors Ousmane Sonko tu fais que des points de presse Est-ce Diop Fall wax na pourquoi do def conférence de presse on te pose des questions tu es sous contrôle judiciaire sa passeport dañ ko confisqué on t'a accusé quelque chose mais tey jàkkaarloog askan bi pour mu gaaw a jusqu'à présent donc je crois que tu as taxaw fii di naan Macky Sall ak lépp loo am ñu complot Ousmane Sarr Adji Sarr complot Kilifeu Simon complot mais xanaa dëkk bi léegi complot la ñu nekk ci kaso bi dañ leen complot mais il faut que les choses aillent à leur terme donc c'est quelque chose boo xamante ni foog ñuy wax ko te tey suñu jàppee ni aussi Ousmane Sonko da nga demandé élection en 2019 nga ànd ceeg 5 candidats ci cinq candidats yooyu tu es sorti le troisième jàppal ni que tey Idrissa Seck moo la opinion est tey si dëkk bi Idrissa Seck mooy deuxième et jusqu'à présent kan nga ëppale Madické Niang kenn calculé ko woon euh, pur kenn calculé ko woon tey suñ doon suñ doon xool peut-être troisième nga nekk président tu n'es pas le président du Sénégal tu te comportes comme un président Ousmane Sonko ça veut dire que mën nga soutenir mais respecter les Sénégalais arrêtez de dire le complot parce que su ngeen bëggee tey justice dox ci dëkk bi keroog des treize personnes ñoo fi ñàkk seen bakkan toj ay magasin jaamur toj ay station ay entreprise jaamur vie est chère pourquoi la vie est chère keroog bañ koy toj ba ma demee sama kër yaay dama ko né du yéen a ngi nii di toj askan bi moo koy fayaat fii quelque temps léppay yokkuwaat et puis c'est normal c'est normal parce que aduna moy dox Portugal yaa am temps ñetti dërëm la doon jar mais jamono su demee ba tollu fenn mu wara jar 500 parce que c'est normal li am solo la vie est chère mais tay nañu xol cause bi ak conséquence bi fan la il faut qu'on ait des discours responsables parce que ay jeunesse ñoo ñuy xol ay xalé ñoo ñuy xol et on aspire à être président de la république mën nga ko nek yalla moy fal te tay vie yéen a ne nguur yàlla moo koy joxe mais Macky Sall moom la yàlla jox Sénégal avec cinquante virgule sept pour cent donc jusqu'en deux mille vingt quatre c'est Macky Sall le président de la République il est le père de la nation tey comment on peut voir des opposants yoo xamante ni chaque jour fu ñu toog ñu ngi saaga seen réew di gàññ seen réew di gàññ seen président donc il faut qu'on arrête des euh, leaders politiques yoo xamante ni il en profite

restez des opposants défendez l'intérêt du Sénégal li ma ko waxee opposants yi fi nekk ñëpp amul kenn ku dans le Sénégal je crois que en 2019 on est en 2021 deux ans bataille tey Ligue liggéey amu fi opposition bi lu ñuy génn wax ŋàññ wax ŋàññ wax ŋàññ Macky Sall laa di a la dit falee ci kanam dafa am ñuy jël xeer di la sànni soo taxawee di fayanteeg ñoom sa egg donc le Sénégal a besoin quand même des responsables et qui travaillent pour le Sénégal ñun on est d'accord que vous défendez Kilifeu et Simon mais nous leen défendre ci dëgg bu ñu manipuler le peuple bu ñu manipuler le peuple ça je vous le dis vous avez appelé xale yi génn nañu toj nañu yàq nañu tey kan moo perte doomu kan moo dee doomu baadoola ñoo dee ñan ñoo yàqule seen alal tey est-ce que yéen la ngeen tey vous restez dans votre coin ana waajur yooyu xale bi ñu rey keroog unité 22 bal bi fekk fa ana waajuram ngeen xëy di jël si ay malheuru que jaabal te yëkkati benn somme jox leen est-ce que loolu mën na ko remplacer on est dans un Sénégal dëkku jàmmale dëkku paix la am na yoo xamante ni du fi am tey un président de la République da ngay nekk homme d'État en commençant par Abdou Diouf qu'est-ce qu'il a été gouverneur à 25 ans, premier ministre, puis président. Wade a été combien de fois ministre d'État Combien de fois Wade a fait la prison pendant 25 ans d'opposition mais M. dégg ay PDS je connais très bien ce que j'ai dit ces 93 films la ma Bien bi Ablaye Wade di def meeting Podor Guiya 7 kilomètres dem donc un il a été directeur de société il a été président de l'Assemblée nationale il a été ministre il a été premier ministre avant d'être président Ousmane Sonko qu'est-ce qu'il est aujourd'hui en parle d'un simple fonctionnaire ban état Ousmane Sonko tey est-ce que jarna ci mairie na wuti mairie Ziguinchor wala mu wuti mairie cité keur góor gi mu wuti député assemblée amna député assemblée nationale su ko su ba paré ni soko xol lan lay don mais na jappani ko ci élection yi ñu génn il était le troisième Idrissa Seck est devant lui donc élection yooyu su dee dañu bëgg respecter démocratie il faut qu'on sache ce qu'on dit donc du lepp lu am ci dëgg bi rek ni taxaw ñu né complot la wala du complot comme je le dis chacun est libre de dire sa pensée on te respecte it ku mu neex nga ànd Ousmane Sonko comme mu neex bëgg Macky Sall ku mu neex bal mais pourquoi ku bëggul Ousmane Sonko rek dañu war taxaw Sénégal di ko et yeen Sénégalais yi ngeen aspiré wu kooku suba peut mu nekk suñu président franchement parler nañu del soit suñu xel xol c'est quoi la démocratie nañu àndandoo liggéeyandoo gay ak ni barki démb leen ci coalition mais faut tourné ñu koy saaga mais amna ci droit on est dans un pays démocratique Tay su ko neexee coalition bi arrangé ko mais du ci and donc je crois que tey discours yi nga yëkkati ak propos yi nga yëkkati teg ko ci Bassirou Gueye je crois que c'est des accusations très graves parce que Bassirou Gueye fekkee woo fu mu koy fait ñun fekkee wuñu fu mu ko waxee kilifa def na point de jour dans le journal people de la semaine sur euh, Leral TV canal 33 Binak de Benen fait fee c'est marquant muy Fambay. Fambay, nag yaakaar naa ni suñ ko waxee xel yi dina dem ci lu bëri ndaxte gis nañ ko ci réseaux sociaux yi muy benn femme boo xamante Dagana le dëkk am feebar boo xamante ni dafa nekkoon ci mais ginnaaw bi feebar bi nekkee ci moom boobu ba tey sëriñ bu nekk jéem na ñi taxaw nañ ne nañ ko faj nañ ko mais wér mais jàppale ni que bonne nouvelle la ñu am kii mooy Fambaye gis ngeen qui mu toll jamono ji di président de la République Macky Sall jël na en charge dañ koy évacuer foofu à l'étranger congé D'après après docteur Fatou Ndiaye maanaam nee nañ depuis mois d'avril, avril ñu ngi koy jël en charge di ko jox xaalis muy faj soxlam mais comme gis nañu boobu ba léegi fajuwul donc Macky Sall jël na ko en charge avion médicalisé dinañ ko ci dugal yóbbu ko tugal pour ñu faj ko muy nouvelle boo xamante ni Sénégal li la soxla li la ñu soxla ci yenn opposition yi tay su ngeen gisee ni que mën ngeen dimbalé ben doomu adama ngeen yëkkati ko mais bañ profito ci malheur wala dëj wala dé ngeen jaabante fa bàyyi fa seen 1 million 2 millions wala dik fa dina jël en charge ki juste presse bi bind ko ñu foog ni am ngeen alors que du ngeen ko def crois que Fambaye ñu koy ñaanal wér ak jàmm ak salaam.